bilaay yetta saay yaay jàmbaar laa ilaha illallah ah, li yombul de yombul de barki sëriñ Bamba yombul entreprise bu ndaw de c'est du travail sëy loolu ragaloo de mënoon nañoo ñëw ngay wàccee rido yi naan bu leen dugg fii bu leen dugg fii waaye ñëpp dugg leen fu leen neex nga wax barke Sëriñ Bamba la diva kenn du yow xam nga ni fooy dem am na lu fane doo dem fu ñàkk fayda doo dem fu ñu lay xeebee de foo dem fu ne c'est du sa lépp nga teg ci yoon waaw waaw mi ngi mais qui qu'elle la dit mais les amis de Kumbagaolo, les cadres les res les sécurité sécurité dimanche les sécurités dimanche de Kumbagaolo sont là Qui hum. at mi de ben yon lay genn te bu genné fo am solo koy genné de at mepp nak Thank you.

Donc là, il y a la lèvre de physico, moins, la physico-chimie. Donc c'est ces deux là-bas. Et il y a des contrôles aussi contre un en externe pour comparer les résultats avant de libérer tout produit. Ouais. C'est bon. Vous avez des questions Vous avez des questions D'où vient l'eau en fait L'eau. Euh, c'est l'eau de la terre. C'est. l'eau

Il y aura quelques journalistes qui seront là-bas. Ah ben, désolé, hein, on, va, on va cacher votre beau aussi, monsieur l'ambassadeur. non, mais désolé. Mais ça vous va très bien, Romain. Ça vous va très bien. Voilà. Et voilà. <laughs> D'accord, allez, on y va.

C'est c'est moi qui suis Merci beaucoup. Comment allez-vous Très heureux de votre connaissance, oui, oui. Voilà, bien, Oui, oui yata e saay ça va vous Seck biir Aquaterra Ça va Comment vas-tu En forme Ça va Alors, je vais laisser aussi Yatasai vous présenter ses collaborateurs. Là, moi, mon rôle est fini, c'est à lui de faire. Voilà. La place, voilà. Bonjour, merci. Machallah,

gaa yi nag ay caaxaan yëkkatiwuñu tey dama fee jiitu woon ñëw xool entreprise bi ñëw xool machine yi ñëw xool ndox mi xool ko ba xoolaat ko seet ko ba settantaat ko xam ni senegal ba mu daj ndox mii la ñu war a naan ndax lan ndox mi moo luxe ndox mi moo set ndox mi moo sell Aquaterra gars yi bi ma fi ñëwee ba dem dama toog tuuti dégg kilifa bu mag ni moo fi ñëw tey ndax lan même chose ndox mu sell mi ndox mu set mi ndox mi mu bëgg a découvrir moo ko fi indi muy kan Kumba Gawlo Seck Kumba Gawlo nag tey moo ñëw biir Aquaterra gars yi nag Aquaterra boo gisee lii nga xam du société bu ndaw bo gisé li nga xam du société pour touti bo gisé li nga xam ne ñu des années des années pour lan sénégalais yi bëgg sénégalais yi kontaan sénégalais yi satisfaire wu ak wa Terra tey Kumba Gawlo mo fi ñëw fi pour visiter lepp loo xam ne moom la ñuy defaree ndox mii nga xam ne mooy Aquaterra ñu mën koo découvrir xam nan la ndox mi di doxee ak nan moo tax ñu indi fi ndox mi ak lan la nit ñi di sant ci ndox mi ndax Aquaterra daal jamono ji ñu toll Sénégalais yi moom la ñu bëgg te moom rekk la ñuy naan yi maa ngi ci Aquaterra